waaw euh, man di Diop léegi mën naa bëggoon waxtaane yéen ci mbirum Guy Zeng euh, ci kaw li ñu xaw a li ñu préparé muy final yi. waaw ma doon wax nag sama passage daanaka Guy Zeng ba mu amee ba léegi laa ci jot a def ak lan laa ci jot a gis. Euh, balaa muy tudd Guy Zeng mu ngi tuddoon Damels Damels nag moo fi nekkoon avec de grands joueurs yoo xam ne ñoom Abdou Aziz Mboub. ñoomin euh, Ibrahima Seck ñoomin Jaxate ak man ñi ñun ñoo nekkoon Damels ak sunuy partenaires yu bari mënuma leen lim parce que déjà day xaw a gudd bi ñu foofu ñu fusionné en 1977 ak euh, Rakkaaju loolu moo ñëw indi ñu fusionné Ndiak Rakaju benn année bu ci tegu ñu football seulement joueurs yi comme que dañoo bari woon bari bari waaye boo xam ne eh, te kat ni ñu ko defoon c'était prématuré parce que jotuñu koon préparer loolu moo taxoon affaire bi kaay obligé daal di dem créer fële lu ñu wax Guney Zinc. parce que fusion Damels ak Rakaju moo indi li ñu wax Sirat. première année bi vraiment football nañ fa match yu rafet Diokunda ñoom Bada vraiment c' était une très bonne équipe mais seulement jours yi dañoo bëri woon et encore on n'avait pas les mêmes nañ daan gisee mbir mi du woon noonu ñaari camps yi amuñu woon les mêmes moo tax mujj bi nag gone yi jàng beru gars yi beru daal créé li ñu wax Guneysen mu nekkoon une très belle équipe remporté fi coupe yu bari bari football fi football boo xam ne yóbbu turu Guneysen football yu Pikine ca kaw a kaw ko sur la présidence d'ailleurs de Mali Pape Malick Diop. waaw man mës naa yor équipe Guneysen di ko entraîné en 1982 temps yi maa ngi woon ay xale yu ndaw mais du ma mag dama leen mësoon dama mësoon entraîné équipe cadette bi bu Damels. nekk en même temps joueur temps yi Babou Touré était cadet ma ne ko ah, au Flamenco dafa ñu jàmbaar après en 82 nag man maa yore woon Guney Zeng c' était une très belle équipe ñoom Chico nga fa woon man maa leen jikko sol grâce au Guney Zeng y avait ñoom Chiquet mais xale yu mënoon football. suñu continuer woon waxtu yi doon nañ nekk de véritable professionnel seulement l'encadrement n'a pas suivi euh, li ma ci gis mooy daanaka xam nga loo gis su doon en Europe dañ ñaan centre de formation euh, fii lacune bi nga li nga xam ne mooy mooy moom moom la moom la nit ñi war a def te duñ koy def te commencé nañ ko léegi parce que même si élite football bi bu Sénégal ñu ngi commencé di former ay nit c'est que comme que dañ ko defoon équipe quartier à la base dañ jël woon liggéey parce que gars yi dem nañu ba nga xam ne dootuñu jël seen équipe seen seen jour joueurs quartier dañuy dem feneen di dafa jënd ay joueurs di indi mais joueurs yooyu suñu demee ba ñeneen jënd leen ba ñoom amuñu xaalis dootuñu amati ñu leen footballal parce que dañuy bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi war a pour défendre les couleurs du quartier ah ñu dem jëli ñeneen suñ jëlee ñeneen mais ñooñu dañu mujjee laasewu mujj bi dootu ñu am benn benn benn envie football dara dootu leen motiver pour ñu mën a football te pour nga football il faut que ñu lay tàggat di la jox la formation bu baax di la ko woon par ndànk parce que bien bien que ñun amuñu ay installation sportive yu rëy nawetaan ñun ñu ngi doon xam ni ñuy former jour yi. dans chaque quartier am na ñoo xam ne dañ leen daan forme da ngay xool bu njëkk fii Damers y un un boo xam ne un monsieur un grand monsieur du nom euh, euh, di Sall ku bëggoon football mais tàggat ñi daan tàggat waaye léegi loolu moo ñàkkoon moo tax gone jàng lu yàgg amatul woon joueur amatul woon équipe désintéressement am gars yi dañ daan football mais dara du fa nekk. jàngat bi ma ci am mooy da xale yi dañoo teel dañoo dellu siwaat démb. dañoo dellu si démb parce que bu ñu ñëwee dañoo ñëw d' abord seet mag ñi bés boobu yàlla defoon na fa maa nga fa woon yàlla defoon na fa maa nga fa woon Alaaji Omar Diouf a nga fa woon délégué de quartier ak suñu suñu suñu presque pas mal de dirigeants yoo xam ne bu njëkk ba daan nañu xool football bi daan intéressé wu ci football bi. xale yi dugg fu nekk waxtaan ak ñëpp associé ñëpp ci fii de loin et de près nit ñaa ngi doon jéem a def la ñu mën ci loolu muy xel muy xalaat muy muy muy muy muy muy muy ku ci am sa xaalis joxe ku ci am sa maye joxe ak xalaat xel yooyu ñu doon joxante moo gën a léegi indi loo xam ne motivation boo xam ne xale yi fu mu nekk gëmatuñu lu dul la la mag ñi daan gëm c'est-à-dire gëm nañu seen bopp loolu moo indi lii performance bi lii moo ko indi dañoo associé wu nekk benn nekk bloc nekk bloc nekk bloc di nangu ci conseil mag yi. waaw dëgg la équipe montante koo koy koo koy wax ji sax parce que équipe boo xam ne du cesser progresser ah ndam lay jëli te pour contre contrecarrer ko il faut que comme que ñun équipe bu mag lañu am nañu expérience nañ jéem a seet naka lañuy ban ban ban ban ban tactique la ñuy teg. pour mën a contrecarrer li nga xam ne ñoom moom lañu ñu bëgg pour loolu nag football li ko ëmb dafa yomb dafa yomb te mu ngi commencé tumuranke parce que damay gis léegi rek gars yi di jolal bali di sandi mooy wax gune zeng rek li ma leen yàgg a wax mooy suñu football terrain bi la ñu moom moom la ñu xëccoo donc il il il leur faudra nécessairement li ñu wax occupation rationnelle du terrain une bonne circulation de balle te bu ñuy fàtte di dóor parce que soo dul dóor doo marqué but équipe bu ñu ko taxawal gone sànq dina la duma te xam naa xale yi idée noo noonu ñuy footballé découper rationnellement le terrain di circuler intentionnellement le ballon intensément xale yi wóor na ma ni suñ ko falwalee Pastef dinañ ko. waaw euh, li ma doon wax rek ci ginnaaw ma ne. gis nga xamoon ne sax dinañ ñëw ci loolu ne la formation mooy lépp Pape yàlla na ko yàlla atte ci yërmandeem yàlla na ko yonam saa sam teelu ci aljana gën a ko parce que bàyyi na fi œuvre bu rëy lii moo manqué woon lii moo manqué ci équipe yëpp même au niveau national ñu ngi ko door a jël temps yi gis naa benn entraîneur bu doon wax ni bu ci bu ci bu ci sant yàlla bu baax keroog ci journal bi donc li ma leen ndox mooy lii. formation dafa am solo ku aw ci formation formé nañ la ku ñu forme nga mën a jëf soo jëfee nag def naa ni soo tulee nga nga def lu baax waaye ku ñu formé mënoo def dara donc Pape jaajëf man sama xale yi wóolu naa leen. Benja bi nga xam dafa jóge ci Black Star football naa ñoom ndeysaan Njaga Caam yàlla na ko yàlla ati ci yërmandeem ñoom Papis on a joué ensemble donc fii amatul équipe bu ndaw. amatul équipe bu ndaw xam nga lu fi nekk ku ñu tàggat ca yoon rek di nga war a mën a am ndam te man wóolu naa ni sama sama sama ñetti équipe yi nga xam ne may présenté pour la première fois trois équipes hein hein d'une même ay amoon na fi 1995 je ne sais bi ñu wax ne 1995 ki moo ko doole parce que bii trois trois matchs yëpp benn jour la c'est inédit. bii moom c'est le sommet. waaw waaw c'est vrai wax nga dëgg c'est vrai. Seratou <laughs> gis nga ko de gis nga ko de. Allahu akbar gis nga li yàlla di def c'est l'ironie du sort waaye dinaa leen wax dara de Seratou de ñu bëgg football lañu. Seratou ils ont ça dans le sang yàgg bëgg football. ñoom seen seen foo yëpp mooy football seen foo yëpp mooy football waaw seen foo yëpp mooy football xam naa ne fu mu nekk naa fu mu nekk ñoom gomi sax ñoom kii ñu may xool di wax mais si day taseex moom parce que ñoom dañuy football ba màgget kën sa ngi ni bés mu ne mu ngi ci terrain yi kon boog maa ngi ñaax maa ngi ñaax sama sama sama vétéran yi ñoom Chico la belle époque ne leen ñu jéem a góorgóorlu ah góorgóorlu de entraîné ba ba ba ba ba mu baax mën a taseex ñii parce que Sidaat ñu bëgg football lañu ñu bëgg bal lañu dimanche bu ne ñu ngi football. xale yi nañu war a xam ne ñoom ñoo moom Pikine Pikine benn la Pikine kenn mënu koo xar ñaar Pikine même bañ daan jóge fi ñu ñëpp di jànge ji ba dakaar Pikine Pikine la rek te ñëpp léegi presque fii la ñu jàngee. fii la ñuy liggéey ñu ci bari Pikine ba la yeewoo Pikine la ñuy defee lépp luñ fi am pikin la kon boog nañu nañu nañu seddal xol yi jëfandikoo xel yi jàmm dara gënu ko ci réew jàmm mooy indi naataange mooy indi liggéey jàmm mooy indi lépp loo xam ne rek jàmm la mooy indi lu baax soo xool mënul nekk feneen wala ngay def defi jëyi ci ay match de football match de football muy aareel muy match muy lépp nit ñi dañu war a jiital seen xel jiital seen xel am nekk des sportifs lépp lu ñuy wax violence lépp lu yoo xam ne musiba la nañ koy bay nañ koy bàyyi buñ koy xalaat koy ñëw terrain ba na nga solu sangu loj ñu sa xel bu mu dem ci lu dul lu baax soo ko defee ku gaak lu baax am lu baax waaye soo naan balaa nga ñëw dangay ngay wut sa peel da wut sa paaka da ngay wut sa kii loolu soo ñëwee ci terrain bi ñëwuloo pour seetaan football da nga ñëw pour indi jéy te jéy yàlla nañu ci yàlla musal fu jéy am jàmm amu fa xoolal déplacé yi ngay gis soo demee ay Congo soo demee foofu foo dem mu am musiba kenn mënula ko wax. kon boog nañ ñaan yàlla di julli ci yoonu saasam di moytu jéyi kuy ñëw stade ba na solu sangu lojkale ñu ñëw yiw def lu yiw wax lu yiw encouragé xale yi ñu football que le meilleur gagne que gañ meilleur gagne je loolu laa mën a wax xale yi ne leen ñun bu njëkk bi dañ ñaan football daan nañu football trois matchs par jour football nañu fi koñ ba lee football koñ bi waaye doon nañu dégg xeex parce que xeex dafa nekk loo xam ne day mooy jur yàq yàq moom mooy jur musiba waaw yàlla nañu ci musal dirigeant yi maa ngi leen di féliciter di leen remercier liggéey bi ngeen def te seen président Maturin jiite leen nekk na liggéey bu ànd ak yar liggéey boo xam ne boo xam ne fruits yi di ngeen ko di ngeen ko dingeen ngeen ngeen ko lekk de beaux fruits yoo xam ne di ngeen ko lekk fruits yu neex di ngeen ko lekk parce que liggéey bi set na rafet na jekk na ba ngeen ñëwee da ngeen wax ak mag ñi bi ngeen jógee ci mag ñi dem ci dem ci dem ci dem ci xale yi bi ngeen jógee ci xale yi amul fenn foo leen taxaw foo leen war a taxaw dem ngeen ci mairie ba dem ngeen un peu partout waxtaan ak mag ñi waxtaan ak imaam yi wane ne yéen mii da ngeen sàkku ñaan te kuy sàkku ñaan def naa ni jàmm ngay sàkku ak ak yokkute kon donc Maturin moom euh, yàlla na yàlla lafal cat ñoom Pape Moussa ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal ñoom Badou Thiam ñoom Petit ñoom ñëpp ñi nga xam ne dañoo jàpp ci mbir mi waaw soo demee ci mbaaru baay bu bi fa lañ fay toog di fa di fa segg lu bari di fa segg lu bari xale yi dañuy dem ba guddi jot man leen xanaa yéen yenn yéenay garde koñ bi ñu ne ma déedéet on est dañuy liggéey rek père dañuy liggéey waaw maa ngi remercier si aussi ñi xam ne jàpp nañ ci waa kër Habib makitaal jàpp nañ ci bu baax a baax jàpp nañ ci bu baax a baax El Hadj Omar Diouf jàpp na ci bu baax a baax mënuma lim ñëpp waaye xam naa ne Maturin moom c'est un jeune boo xam ne. pétri de qualité yàlla na ko yàlla lafal cat waaw yàlla na ko yàlla lafal cat président la boo xam ne un président jeune mais très ambitieux ah waaw très ambitieux ah, li may mujjee wax mooy xale yi góorgóorlu leen la fayda ak sago la fayda ak sago mooy indi ndam et accepter d'être guidé bu leen nangu mukk ñu mëdd leen faaw na bopp bi nekk ci kaw rek na ngeen yéenante jàmm xam ne ndam li yéen a koy moom koo war a jox joxoo kii dugal na kële dugal na c'est pour le bien de l'équipe bravo na ngeen dem ca kanam ca kanam rek waaye équipe yi ci am ay joueurs maanaam bu dee cadet bi. waaw sa sa jarbaar Ahmed Aïdara nga bu bi sa doom sa jarbaar waaw mi ngi mm-hmm. euh, surtout ren vraiment dafa mel ni xale yi dañ ñem a euh, euh, dañ dañ footballal parce que ñoom Sané nga fa sama jarbaat yi sama doom yi nga xam ne mooy Mamadou Mamadou ay dara ñoom Sadio. Saliou Saliou Sarr Saliou Sarr Saliou Sène keroog euh, matcham bi contre kii bit boobu mu marqué su ko réédité dinaa kontaan defe naa ne un apport considérable la gis naa ni muy footballé waaw. dégg loolu moo taxoon daal vraiment sama xol a ngi sori amatuma sax lu may vraiment les idées ma manque mais xam naa ne xale yi moom am naa yaakaar ci ñoom. ils sont partis de rien mais en je crois que ce mooy rek ñu cravaché jël euh, jël ñetti coupe yow yëpp parce que mën nañ ko li leen indi ba fii firndeel na ko waaw retenue et modération boole ko fulla ak fayda ak sago jeex na xale yi ñoo yéenay moom